maa ngi leen di fay salaamaaleykum moo ngi leen di nuyu di leen siyaare donc euh, Seydina Mohamed Diakhaté di président African Youth Challenge. Euh, African Youth Challenge benn mouvement panafricain la boo xam ni dafa regrouper ay sénégalais ba pare am na aussi ay représentants au niveau de l' Afrique donc African Youth Challenge comme noo nom l'indique africaine comme africain youth bi ñuy benn mot anglais la bu tudd la jeunesse challenge défi. donc African Youth Challenge benn mouvement la boo xamante si nii seen objectif mooy relever les défis de la jeunesse africaine maintenant défis yi bari na mais dañoo tànn défis yi nga xamante si nii tey mën nañ ci jàpp mën nañ ci apporter notre pierre à l'édifice mën nañu mettre la main dans la pâte ba mu permettre ñu au moins ñu xam ni Sénégal am na ay jeunes yoo xam ni nekkuñu di xaar kese mais dañuy promouvoir donc mouvement African Youth Challenge secteur yi muy gën a intervenir mi ngi bokk ci euh, éducation mi ngi bokk ci santé mi ngi bokk ci social mais mi culture aussi ci la bokk parce que dëkk moom mënoo ko wax sans culture te nee ñu la développement d'une nation réside aussi dans sa jeunesse donc comme ni ko Kennedy aussi tàmmoon di waxee nee na yow ndaw mi bul nekk di laaj saa su nekk sa dëkk li mu lay defal mais na nga fexe yow tamit di laaj li nga xam ni moo nga war a mën defal sa dëkk voilà donc li ko waral mooy euh, dafa nekk mouvement boo xam ni dafa yëngu ci éducation santé sociale ak culture ba journée de la femme nag moom boo ko waxee interpellé na waa mouvement bi mais en même temps aussi interpellé na képp kuy jeune ak képp kuy jigéen au sein de notre mouvement am nañu ay jigéen yu dynamique ay femmes yoo xamante si nii subaak ngoon guddeeg bëccëg ñu ngi liggéey ci li nga xamante si ni mooy développer Sénégal ñi ngi liggéey ci loo xam mooy développer Afrique ñu jàppoon ko depuis daaw ba ci daaw jéeg sax mais Covid bi fi nekkoon jaar fii moo taxoon ñu ko matérialiser moo tax ren ci lañ ko jàpp ñëw indaale ay bagage lépp loo xam ni matériel la jigéen dina ko soxla ndax milieu bi dafa nekk milieu bu doy waar milieu carcéral moom benn affaire la donc ñu xool euh, ak sunu commission féminin bi nekk ci mouvement African Youth Challenge ñu liseel ñu li nga xam ne jigéen dina ko soxla ñu fàggu ko ñuy tamit di leen fàttali ni mouvement la boo xam ni amul sponsor ñii nga gis ñu nekk ci ay ay membre mouvement bi lépp lu ñu fi indi ñoo ko cotisé c'est la première fois nag mouvement bi am benn sponsor ñoo xam ne ñoo ñu jox ay ndox je sais pas si je peux citer le nom voilà ñoom ñoo ñu jox ay ndox pour ñu indaale ko jox ko jigéen ñi fi nekk mais li ñu gën a yitteel mooy fexe ba bis bi nga xam ni bisu jigéen la ñu ànd ko jigéen ñi nga xam ne si dañoo nekk fii parce que la femme dañ ko war a feete fu mu nekk voilà loolu moo waral ñu dajale sunu lépp lu ñu am indi ko jigéen ñi fi nekk fii ànd ak ñoom bis bi xamal leen ni wéetuñu ci xamal leen ne am na ay góor yu koy ànd ñoom xamal leen ne am nañ tam benn mouvement bu tudd Africa Youth Challenge bu nekk seen ginnaaw fa seen ànd ak ñoom faw faw faw voilà euh, mouvement bi commencé na depuis 2019 bon daaw nag lañ ko jàppoon na ñëw fii sax ci Camp fii mais Covid bi moo taxoon mënuñu kon agsi mais ren yàlla dogal na Covid bi wàññeeku na moo tax ñu agsi fii mais mouvement la boo xam ni Euh, décembre passé le cinq bi passé ñi ngi woon pouponnière bu nekk Diourbel euh, yóbbuwoon fa tam comme ni ñu def noonu lañ fa def école bi dañ fay intervenir lycée yi dañ fay yóbbu lépp loo xam ne jumtukaay la boo xam ndongo yi dañ koy soxla boo demee Fatick dañu fay dem boo demee ba biir Fatick am na dëkk bi ñuy wax Ndiallo ak bi ñuy wax Ndiop dañ fay intervenir donc lépp daal loo xam ne domaine la bu laal éducation domaine bu laal social domaine bu laal santé ak domaine bu laal culture African Youth Challenge dafay intervenir loolu nag moo gën a waral nag ren gannaaw daa amuñu woon bi ren ñu àndandoo ko ne nag balaa dara nañu fexe ba 8 mars bi ñu ànd ko jigéen ñu nekk fii lépp loo am nañ ko ñu dajale ko ak nu mu mën di toll ñu indi leen ko fii ngir ànd ak ñoom journée bi. waaw ñu ngi woon nag ñëpp parce que initiative la boo xam ne je pense que soxal na ñëpp tey bu ñu nee euh, éducation képp ku fi tekki ku nekk je pense que da ngaa jàng. bu ñu nee social laal na ñëpp bu ñu nee santé tey ku nekk bëgg nga tey boo feebaree nga faju bu ñu nee culture aussi dëkk boo gis am na culture boppam donc ñoo ngi laaj di ñoo ngi lancé benn appel bu solennel aux bonnes volontés ONG yi képp ka nga xam ne xalaat nga ni ndaw Afrique ndaw Sénégal yitteel na la ñoo ngi lay woo ci mouvement bi nga jàppale ñu ci action yi ñuy def di leen xamal ne lépp lu ñu def lu nekk social la ba fii ñu toll lépp lu ñu am lu nekk ñoo ko dajale ñoo ko cotiser suñu bopp fas yéene koo def ngir Sénégal fas yéene ko def ngir Afrique fas yéene ko def aussi pour toute la jeunesse du monde entier. waaw sant yàlla tout d'abord maa ngi leen di nuyu presse bi sama gars yi ah di leen béggee di rafetal seen liggéey di rafetlu seen liggéey bu baax dëgg yàlla ku leen xam ah, bi may ñëw fii laa leen fekk ci naaj bu tàng bi ngeen taxaw rien que pour rek pour wane ni ah, am na sunu ay yaay sunu ay sœur sunu ay rakk yu nekk fii yoo xam ne war nañ leen taxaw. war nañ leen soutenir muy ñoo xam ne ay jigéen lañu xam nga tey nag di journée mondiale de la femme xam ñu woote fii nga xam ni euh, mooy camp pour ñëw soutenir jigéen ñi tout d'abord bégal leen mais tamit apporter suñu soutien li nga xam ni mooy ay ay ay loo xam nga jàppale leen ku ci nekk sa doole loo am ak loo mën artistes yëpp daje fi wax dëgg fa yàlla di saluer ñoom jibi xam nga ak Penda Gisee ñoom Aba ak ñoom euh, euh, bisu ngoone bu baax xama nga gars fekk yëpp. tey moom sama xol dafa tooy quoi sama dama kontaan di leen remercier tamit bu baax yéen seen taxawaay waaye. pourquoi le choix de Diery Ngoné. pour pourquoi le choix de Diery Ngoné parce que c'est mon choix parce que sama euh, liggéey ak sama carrière.